waj'al kalaami raashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen balu àq te di leen bal di ñaan suñu borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal ni ñu ko baaxoo ànde ak yéen ci ay bis di fàttalentendoo ak yéen eh, lenn ci mbindum sëriñ bi radiallahu anhu ci suñu jataayi xam-xam ci lañu dellu siwaat ak yéen eh, fas yéene ànd ak yéen eh, fi nga xam ne foofu lañu taxawoon ci suñu bind bi mujj ci suñu bind bi mujj ñu ngi woon ci bunt bi nga xam ne ci la moom la sëriñ bi radiallahu anhu jagleel Euh, ñi nga xam ne ñooy malaaka ci ñan ñooy malaaka ak naka lañ leen war a gëme tàmbali woon nañ ko suñu bind bi weesu ñu xamle woon ñan ñooy malaaka yi waaye xamle ne ñoom ay mbindeefi yàlla lan ñoo xam ne ni leen yàlla euh, suñu borom bi subhanahu wa taala sàkke dafa wuute lool ak ñi mu sàkke doomu ngir ne ñoom daf leen def ñu nekk ay mbindeef yoo xam ne euh, duñu soxlawoo lépp loo xam ne doomu aadama da koy soxlawoo wala lu ci ëpp boog lu mel ni ay lekk ay naan ak yooyu nga xam ne doomu aadama mënu koo ñàkk yu mel noonu yëpp nga xam ne euh, doomu aadama daf koy soxlawoo suñu borom bi subhanahu wa taala dafa bind malaaka moom wuutale ko ak doomu aadama ci anam googu nga xam ne ci la mu ko bindee moo tax suñu borom wuutale ko ak doomu aadama ndax ñoom suñu borom bi subhanahu wa taala mi ngi leen bind ci ak leeram wuuteeg doomu aadama mi nga xam ne suñu borom bi subhanahu wa taala ci eh, ndox wala suuf ak eh, ban la ko bindee akum ndox waaye wutale ko ak mbinde yu baree bari itam ci mbindeefi suñu borom subhanahu wa taala kon ñoom dañoo am ak jagoo maanaam dafa am lu leen suñu borom subhanahu wa taala jagleel ñoom malaaka yooyu nga xam ne suñu bind bi weesu kon ñu ngi taxawoon ci bayit bi nga xam ne ci la sëriñ bi radiyallahu wax ne wa annahum xalaqahum rabbul bashar min nuuri rabbihi fa xaalafuuhum fi suwar ñi continuer suñu bindu tay rek di continuer fi nga xam ne foofu la ñu taxawoon sëriñ bi radiyallahu anhu di wax ne taamuha taqdiisu wa tasbiixu sharaabuhum haza huwa saxiixu taamuha maanaam seenu ñam ñoom malaaka yooyu at taqdiisu moy sellal suñu borom bi subhaanahu wa taala wa tasbihu ak e, sabbal nag sharabuhum mooy seenu naan hada huwa saxiixu loolu mooy li nga xam ne mooy li wér kon malaaka yooyu nga xam ne waxoon nañ ci bind bi weesu ne duñu lekk duñu naan seenu lekk boo ko bëggee xam mooy sellal suñu borom bi subhanahu wa la waaye seenu naan boo ko bëggee xam nanga xam ne moo di sabbal suñu borom bi subhanahu wa la kon ñoom ci sellal jëmmi suñu borom bi subhanahu wa taala la ñu dëkk mooy seen mooy seen lekk waaye sabbal suñu borom subhanahu wa taala fu ñu toll di tudd màggam gi loolu mooy seenuk naan kon day mel ni saa bu ñu sellalee suñu borom subhanahu wa taala rek ñoom euh, regg nañ waaye saa boo xamee ne ñi ngi sabbal suñu borom subhanahu wa taala mandi nan kon ñoom loolu leen suñu borom subhanahu wa taala jagal Euh, wala loolu len suñu borom subhanahu wa taala jagleel mu am ci malaaka yi nag euh, seenub lim bari lool bari nañ lool waaye suñu borom subhanahu wa taala am na ñu muñu leeral ci ak teqale ñoo xam ne euh, da dañ leen a war a gëm ndax ñooñu ñu ràññeeku lañ ci biir malaaka yi te it ñooñu kenn ku ci ne am na ay jëf wala ay Eh, wazifa maanaam yoo xam ne moom la la suñu borom subhanahu wa taala eh, jaglel nga nga war ko cee eh, taxaw moo tax mu ne wa minhum bokk na ci ñoom malaaka yooyee man wajabal imaanu ñoo xam ne wajaba war na al imaanu gëm bihim ci ñoom ala tafsili ci ak teqale yaa sibyaanu yéen ndaw ñi sëriñ bi radiyallahu wax na ne na ngeen xam ne malaaka yooyu nga xam ne ñoom moom lañ leen wax de euh, tey ñuy mbindeef yu baree baree bari di càkkutee fi suñu borom subhanahu wa taala yu baree baree bari euh, am na ci ñoo xam ne euh, gëm leen ci ak teqale maanaam xam ñooy ñan loolu dafa doon loo xam ne lu war la gëm ñoom ñëpp nag lu war la ci jullit bi lu war la ci képp koo xam ne gëm na suñu borom subhanahu wa taala waaye ñii nga xam ne ñoom la sëriñ bi radiyallahu anhu teqale moom ñooñu moom gëm leen te xam leen xam seeni euh, euh, seen seen li nga xam ne moom la leen suñu borom subhanahu wa taala sant ñu koy defal loolu lu war ci bépp jullit moo tax sëriñ bi ne euh, bokk na ci ñoom malaaka yooyu ñoo xam ne dañ leen a war a gëm ci ak teqale maanaam dañ leen a war a gëm waaye dañ leen a war a gëm ba pare xam ñooñu ñooy ñam ñan waaye buñ xamee ñooy ñan ba pare ñu xam yan jëf la suñu borom subhanahu wa taala euh, sant ñu war ko koo jëfal adaduhum ñooñu nga xam ne ñoom lañ war a gëm nag te xam leen xam seeni tur xam ñoom ñooy ñan ak lan la leen suñu borom subhanahu wa taala sant ñu war ko koo jëfal seenub lim yaa un fukk la moo tax mu ne adaduhum yaa un fa jibrilu summata mikailu israfilu nee na seenub lim ñoom ñëw ñu nga xam ne ñoom lañ war a gëm ci ak teqale day seenub lim fukk lañ ka jiitu mooy jibril alayhi salaam summata mikail topp e, malaaka mu ñuy tudde mikail israfilu topp israfil rabiu haula'i ki nga xam ne moo ñeenteel ñoo ñuumu la tuddal azrailu mooy malaaka mi nga xam ne moo wa malikun ak malik ridwanuha ak e, ridwanam ridwanam ma moom aljanna almamulu ma nga xam ne moom la ñu yaakaar raqibuhum senum raqib atiduhum ak seenum atid munkarun munkar maa nakirin ànd ak nakir kulluhum képp kenn ci ñoom mutamarun ku ñu digal la la xam ne moom lay jëf kon ñooñu ñooy malaaka yi nga xam ne euh, suñu borom bi subhanahu wa taala euh, wala sëriñ bi radiyallahu anhu lim na leen ci ak teqale ñu war leen a jàpp seeni tur waaye itam war a xam malaaka mu ci ne lan la ko suñu borom bi subhanahu wa taala sant mu war koo jëf euh, yooyu ka jiitu mooy jibril alayhi salaam ka ca topp mooy mikail ka ca israfil ka ca topp azrail ka ca topp mooy malik ka ca topp mooy ridwan ak raqib ak atid ak munkar ak nakir fukki malaaka yooyu gëm leen ci ak teqale xam kenn ku ci ne lan mooy euh, yitteem lan la ko suñu borom subhanahu wa taala sant loolu dafa yell ci jullit bu nekk waaye dafa yell ci képp koo xam ne gëm na suñu borom subhanahu wa taala kon ñooñu ñooy fukk yi nga xam ne fukk yi nga xam ne ñoom gëm leen ci ak teqale maanaam gëm leen ci ak teqale mooy lan mooy xam seeni tur xam li nga xam ne moom la leen suñu borom subhanahu wa taala sant loolu dafa war waaye gëm ñoom ñëpp moom moo gën a warati mu bëgg ñëw ci kenn ku ne ci malaaka yooyu li ko suñu borom subhanahu wa taala sant mu war ko ko defal mu ne xussa jagleef na bi waxyillahi ci waxyu yàlla wi jabrailu jibril alayhi salaam wa xussa jagleeleef na bil matari ci taw bi mikailu mikail sëriñ bi radiyallahu anhu ngi jagleel suñu borom subhanahu wa taala mi ngi jagleel jibril alayhi moom la jagleel li nga xam ne mooy alwaxyi moom mooy al aminul waxyi nga xam ne euh, saa suñu borom subhanahu wa taala nammee yónni ab yonent jibril lay yónni ca moom mu dem wax ko li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu moom la ko suñu borom subhanahu wa taala uh, war a yónni loolu uh, yonent bi sallallahu alayhi wa bi nga xamee ne nekk na ca xaaru xira jibril alayhi salaam foofa la ko fekkoon ba foofa la ko uh, yonent bi dikkale waaye foofa la ko jibril leera la ne suñu borom subhanahu wa taala daf ko yónni ci li nga xam ne mooy xeet bi Euh, ñaareel ba yonent yàlla euh, euh, malaaka mi nga xam ne moo tudd mikail suñu borom subhanahu wa taala moom la jagleel li nga xam ne moo di taw saa boo xamee ne suñu borom subhanahu wa taala namm naa taw moom lay jox ndigal ngir mu taw comme ni nga xam ne noonu la ko suñu borom bi subhanahu wa taala bëgge kon kenn ku ci ne ci ñoom ñaar gis nga li nga xam ne mooy euh, jëf ji nga xam ne moom la la suñu borom subhanahu wa taala sant nga war ko koy jëfal mu ne woon nafqu fi suuri wal ci bufta bi nag li israfila ñeel na israfil wal xabdu li ruuxi li azraila ñëpp ruuy nag ñeel na azrail malaaka mi nga xam ne moo tudd israfil moom la suñu borom subhanahu wa taala jagleel li nga xam ne mooy bufta bi bufta bi bu ñu ko waxee mooy Euh, euh, li euh, bufta bi bu ñu ko waxee mooy mën nañ koo tudde ne mooy mbiib gi nga xam ne moom mooy tukkal àdduna waaye mooy mbiib gi nga xam ne itam mooy dekkalaat doomu adama yëpp ak mbindee suñu borom bi subhanahu wa taala yëpp boobu saa boo xamee ne suñu boromi bi subhanahu jox na israfil alayhi salaam jox na ko ndigal ngir mu wal ko bu ko walee àdduna bi lépp day jeex waaye saa boo xamee ne itam joxaat na ko ndigalul mu walaat ko bu ko walee lépp loo xam ne dafa faatu woon itam day wëlbatiku daal di dekkiwaat kon malaaka moomu loolu la ko suñu borom subhanahu wa taala sant ci jëf joo xam ne war na koo jëf nga xam ne moom fa nga xam ne fa la ko suñu borom subhanahu taala yem loo foofa rek lay yem mu seex buftaam taxaw saa bu ko suñu borom suma wa taala joxeen digalul mu wal ko mu wal ko saa bu ko joxaatee ndigalul mu war ko walaat walub ñaari yoon itam mu wal nga xam ne wal bu njëkk bi mooy wal gi nga xam ne ci lay àdduna di tukkee waaye walub ñaareel gi mooy wal gi nga xam ne ci la suñu borom subhanahu wa taala di dekkal lépp loo xam ne faatu woon na bu dee Azrail moom tamit malaaka moo xam ne bokk na ci malaaka yi ñu war a gëm ci ak teqale nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala jagleel ñëpp ruug doomu aadama nga xam ne képp koo xam ne da ngaa war a faatu moom la suñu borom subhanahu wa taala di yebal mu ñëw ci yow euh, bu ñëwee ci ndigalul suñu borom mu daal di jël sa ruu euh, yóbbu ko ca euh, suñu borom bi subhanahu wa taala wa yaktubu raqibu wal atidu jamia ma yafaluhu al abidu mu ne wa yaktubu nag dana bind ar raqibu raqib wal atidu ak atid jamia ma mboolem la xam ne xal sat na ko def al abidu jaam nee na malaaka mi nga xam ne moo tudd raqib ak atid ñaari malaaka lan ñoo xam ne ñoo nekk ci mbaggi doomu aadama bi di ko surveiller di ko topp fépp foo xam ne fa la doomu aadama bi jëm ak lépp loo xam ne moom lay def euh, ñaari malaaka yooyu ñoom la ko suñu borom subhanahu wa taala booleel ñu koy surveiller di xool ci lan la nekk lépp loo xam ne def na ko ci aw yiw ñu bindal ko ko ca saase nga xam ne rakib moo nekk ci euh, mbaggum ndeyjoor mi aatid nekk ci mbaggum càmmoñ nga xam ne euh, malaaka moom mu nga xam ne moo tudd raqib lépp loo xam ne moom la doomu aadama bi jaam bi def ci jëf ju baax moom dafay gaaw bind ko su ko suñu borom subhanahu wa taala digalee mu ful mu ful ko ba fo borom bi subhanahu wa taala yemloo malaaka mi nga xam ne mooy aatid nag moom moo nekk ci mbaggum càmmoñ mi nga xam ne lépp loo xam ne moom la jaam bi jëf ci ñaawteef moom la suñu borom subhaanahu wa taala di sant mu bind ko ci kaye jëfam malaaka moomu nag nga xam ne mooy bind ñaawteef yi moom uh, jaam bi du def ñaawteef mukk ca saase mu bind ko waaye dana xaar ba xam jaam bi dana tuub wala du tuub saa bu tuubee mu uh, far la nga xam ne moom la ko bindaloon waaye ki nga xam ne mooy bind yiw moom saa bu jaam baax wala mu yéene koo jëf sax am gàllankoor bu ko tax a jëfal mu bindal ko yi woowee kon ñoom tamit loolu mooy seenu rôle li nga xam ne moom la leen suñu borom subhanahu wa taala di doxloo kon malaaka yooyu kenn ku ci am na uh, wazifa boo xam ne moom la la suñu borom subhanahu wa taala jox uh, di la ko uh, defloo nga war caa taxaw na nga xam ne noonu la la ko suñu borom subhanahu wa digal kon gëm malaaka yooyu ak seeni wazifa kenn ku ci ne loolu Eh, lu war la waaye ci ak teqale itam loolu leen war a gëme kon dañuy taxaw foofu di tuub di jéggulu di wax ne in uridu illa al islaha mastata'tu wa tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa